nunu sant nan santati nan xaadim rasul moom mi nu wan yoonu njariñ wi gaaw te gën jaaraama xaadim rasul sa yoon wi daa la neex taxew xew dëgg ko sampu bam taxaw doy na nu nun doy ña ca kaw mooy leen ci xaadim rasul ndam lii nga am tey biir Dakar jot na sa noon yi xam bu ni yow sa mbir du nax du dóor kii maan nga xaadim rasul jumaay masalik yéem na tey noon yani woon daañu la wallaahi yàlla mën a fay tey fay na xaadimu rasul bañ la jëlee ndara indi la fii ci dakaar ngir sànk la bis booba bis bu metti la lor nañ fa xaadimu rasul bam fi ñëwee noon yaa ngi ko fat ci néeg bu lëndëm xeeñ taxat lu ñu xam ci tiis ak aw metti teg nañ ko xaadimu rasul tiisoon na lool bam noonu dafay wut xeexukaay kum jekku rey njool màkka bañ mu sooke ay aaye ko xaadimu rasul ña ko jëloon def ci saxaar buñ del suwaatoon biir Dakar ba gis jullit yépp di xaar Cheikh Muntaxa xaadim rasul mu jóge Tuuba kuy mbindeef bàbbee ku ñëw ci moom di boof ñii dawee Kambureen ba yof ngir sopp xaadimu rasul oto yi wër kook ay mataar soldaar si ñëw ngir du ko aar muy beg di ree ak taar bi kaar buur fay na xaadimu rasul ñii wuti seen andi di suur mbedd yee suñ bana a jaar ñee jëli parfum yi di tuur ngi bég ci xaadimu rasul mu woy masaalikul jinaan bërëb bërësloo ko añaan wër na ko julli jaa ngi ñaan ñaanal fa xaadimu rasul kenn mus la gis ci Sénégal jumaa ju toll nii ci misaal waa réew mi def ko seen alal lut gaay xaadimu rasul yii naari ñoo na ko sarax yii munta yegg fër na tax murid yi ñoom dëkkee tabax jumaa yi ngir xaadim rasul ñaar fukki milliards ak lu teg lañ def masaalik ngir mu jàkk murid yi maase di ca tey sant xaadim rasul li nga fi dajoon ci wépp ay ak ña fi daa jéem lu la jumaa ji fër na lépp tey jaaraama xaadimu rasul ndakaaru gi la doon sonal xam nga fi ndam lu kenn amul yow ku la def morom xamul kenn nga xaadimu rasul xasida yaa ngi jib ca kaw bernde yaatu lool te leew pénc mi yaa comme neex nga ñëw di dund xaadimu rasul kafe yi tàng di fuur ndawal gi duuf ñu jël di sóor ku yeg si naan lekk ba suur tey sant xaadimu rasul muri di ñoom seen mbir du yam moo tax li ñëw ci xeeti ñam kenn mun la xam fu lim bayam ñoo xër ci xaadimu rasul nun bu nu neexee zibile jumaa ju rëy lañ yeggale amul lu ñuy jémbatale nun ngay xaadimu rasul président Wade nu jox bërëb bi ban man koo tabax mu yi sopp nañ la ndax sa bëgg xaadimu rasul lamp yi ak yoon yi ko wër makee ko liggéey ci lu biir yëgal ni sant nan bu wér nun ngay xaadimu rasul Seex si itam jàmbaar la ngir mboolem liggéey moo ko yor muy nit ku jàmbaare te xéeru soldaaru xaadim rasul jàmbaar lool mbàkki yu fay yal na ko yàlla gën a fay moom xaddiwul booba ba tey ngir sopp xaadim rasul xalifa yi fi jiitu woon defoon ci mboolem lu ñu amoon war na nu fàttaliku leen ñoo doonu xaadim rasul Cheikh Sidi Muxtaar moom itam am na ci ndam lu ñëpp xam yàlla na ko bu dolli ngërëm bi jeexi xaadim rasul Cheikh Muntaxa tey am nga ndam yu bokkul ak yang daa fi am yàlla na nga yàgg am ndam ci barke xaadim rasul war na mbàkke mu sax fi loolu te wér te mucc moo gaayi ko dar bi jaxi xaadimu rasul saalihu gay badar mile dalal te tëj sa way wile daam raw na ñiy raw ñoo ñële kii man la xaadimu rasul